Hey, di delloo di gërëm mbooloo mi yëpp mi nag di sama famille sama nag mën ko gërëm te ci sama papa naa fële keroog ne tool bi moom moo ko ruut moom moo ko béy moo ko góob moo indi lépp ci kër gi xëy na añ gi fekk ko fi nag maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana di gërëm sama yaay moo xam ne muñ na lépp lu nekk daj na ko muñ ko ndax ñun ñoo ngi koy sant di ko ñaanal wër di ko ñaanal gudd fan yàlla aar aar njabootam di remercier sama rakk góor ak sama rakk yu jigéen di leen sant bu baax a baax di gërëm aussi madame Sène di ko gërëm bu baax a baax ndax xëy na moo ma ba kenn xamul sama ñaaw te kenn xamu ko jàpp na ma ci biir jàpp na ma ci biir maa ngi koy remercier baax kontaan naa ci moom di remercier aussi samay dëkkandoo kontaan naa ci ñoom loolu di gërëm monsieur le maire monsieur le maire mën ma ko gërëm ndax wax naa fële l'autre jour ndax meer lu ma defal mënuma koo fay ndax dañ nekk ñaari gor yu ànd bu may dem di ànd ak monsieur le maire dégg naa lu ne ñëpp wax nañu ñu bari dañu waxoon ne moo ngi fay dem mais duñ fa tekkee dara monsieur le maire maa nekk moom moom itam dégg na lu ne lu ne wax nañ ko ko mais dégluwul kenn wax nañ ko sax waa ji àndal nii da ngay def moom attention parce que mën a dem ba sol sa place mais lu nit gën a yàq maire gën ma téye jàppale ma ci biir jàppale ma ci biti te damay ne nit ku nekk lu la yàlla may yàlla wàccul jox la ko da ko jaar ci ay nit xëy na gërëm maire nag dina xaw metti ndax koo gërëm day yaakaar xëy na barke ba waxtu déedéet mais daa nekk kilifa bu baax am ci ñun yéene jàpp ñu jàppale ñu ndax wax naa ko fekk roog bu ñu demee ba 51 villages yi xam tu ginnaaw yàlla moom la yéene nañu jàpp nañu baax a baax ñoo ngi koy sant ko gërëm lu ñu téye ak responsable bi bu ñu jox gis nañ ko te loolu waan set yëpp mën nañ koo seede di gërëm aussi estafam nuyu bi nag dañ koy teg ci Yunus Ka mii parce que keroog keroog bu muy gërëm estaf fee dama ko fàtte woon xëy na occasion la ma sant yàlla tey mu teew mooy jël nuyu di ko teg ci loxoom di ne nag lëg bu lekkee alom na ko gërëme coy man su ma àndeeg monsieur le maire mi sax mii moo tax feelo diggante garab yële foofu la ma kooxal ma ànd ak monsieur def na ko ay weeri weer chaque jour muy wax monsieur le du wax suuf du wax monsieur te nu mu indee noonu la indee keneen Yunuus nag sama yaay day wax boo fekkee nga war ak yu ñuy xuloo atteel nga dem bu ci wax leneen fu ñu jubóo doo ko fekke Yunuus fu ñuy njëkk daara moo ñu boobu ay xale lañu mu nekk suñu magu daara boobu ñoom doon jàng daara mu nekk fële côté Kër Laar xam nga boobu lañ ci nga xamante mu nekk mag boo xam ne daa am ci man yéene am ci man yëg te Youssou ma xamale leen yàlla xam ne nu may defaan tay séeréer noonu lay defaan tay su ma tee amul lu najul yàlla moo xam te yàlla yàlla moom séeréer na ko waaye la si nu may defaan tay séeréer moo tax euh, sama grand maa ngi lay remercier le gërëm kontaan naa ci yow la ñaan aussi nuyu ngay gërëm staff bi yëpp di remercier aussi la jeunesse Thiawiss keroog dama dama leen fàtte keroog maa ngi koy déglu baax a baax mais kontaan nañ ci yéen trop leen remercier bu baax a baax xëy na boo fàtte remercier nga jégal ma xëy na ñëpp laa bëggoon rek gërëm mais nag waa Tassette moom waa Tassette am seen gërëm wallaay lazim am seen gërëm ndax li ngeen ma defal mënu ma koo fay ndax yëpp ak yéene nit mënu koo fay te li ngeen ma lebal nii du ma lebal defal ma leen ko lebalum leen ko li ngeen ma defal nii ndax du xam-xam du alal du xaalis du defalum leen dara yéen a baax seen baax rek defal ma lii te lii commencé wul tey yàgg na bu ma jógee ba léegi da ngeen may jàppale saa yi ma saa yi saa yi ma jàkkee gis leen su ma seetee sama ginnaaw gis leen sama sama kanam gis leen côté bu ne ma gis leen man nag maa ngi ñaan yàlla ba subhanahu wa taala yéene bu ngeen ci am ci man yàlla na bu yàlla tas yàlla na ma yàlla dooleel ba mbégte ngeen am ci man sax bu xëyee ngeen am ñu mbégte te lépp li ma mën pour da rus naa ko def ndax defal dara nga defal wax fay di gërëm góor yi mu àndal yëpp mënuma leen lim ku leen juum mais dama ànd ay ay mag ay ndaw ay ñu ñu baax di ma jàppale côté bu man matuma dama dama doon root na man moo bi damay jël teg ko ci maire Ndeye sen mii ak maire Anne ak maire Marème Sène ñu ak leen lu jigéen bu ma sañoon ku nekk dama lay lim ndax dama ne li ngeen ma defal su doon raam tey ku ne may dem ba sa jox la loxo taxul njaga ak moor ak sekaan ak ak asan ñu gërëmal ma góor yëpp ñu xam ne ma leen fay jeunesse bi aussi couche njëgnum yéen ak ñoom ci la maa ngi leen ñaan ngeen gërëmul jeunesse yëpp ndax li ma am yombul ndax nga dëkk ci dëkk nga taxaw ay kilifa ay góor ay jigéen ay ndaw ñëpp tam sa ginnaaw mënoo leen fay kontaan naa lool ba kontaan yéen keroog jour ta bu ñu bureau bi bu ñu ko ubbee bañ dëppee ñu ñoo gagné dama tëdd ba trois heures du matin ma jóg man lan laa defal waa Tassette lan waa Tassette lan laa leen lan laa leen defal ba ñu defal la teraanga moo tax lépp lu mu am yéen a moo tax sant naa leen gërëm naa leen kontaan naa ci yéen. di ñaan ñëpp ñu takkuwaat. bokk ndey bokk bàyyi. xëy na nag dina bari comme lu leen mais ku ne xam nga kii la man ñu ànd ak kenn amu ci gàcce. wallaahi ñu ànd ak kenn amu gàcce. ndax ku waxal yàlla xam nga ne Mamadou caw lu mu def mairie Tassette kenn defu ko fi mos fi am mën nga waat kaamil wax ko Mamadou Thiaw lu mu def Tassette kenn mësu ko fee def Mamadou Thiaw lu mu def tey séeréer bii kenn mosu ko fee def moom nag dama ne booy ànd da ngay ànd ak mbër bu man bëre ndax mbër ndax du sama mbokk la rek wala sama xarit la nga faral moom te mënul bëre ci gàcce ngay dëkk Thiaw nag. daa nekk mban bëlbële damay ne xam nga nag wax naa ko dama koy bamtuwaat booy ànd ak nit da ngay ànd koo xam ne am na ñaar ba ñett d'abord bu ngeen di dem na xam yoon bi na bëgg a dem na am moyens boo àndee koo xam ne bëggul dem doo dem fenn boo àndee koo xam ne xam na euh, bëgg naa dem mais xamul yoon bi mën ngaa gëlëm boo loolu moo tax nag daa moom daa bëgg a dem xam yoon am mooy yàlla mbër bu ko sampee moo koy téyel boppam caw lu ko yàlla may mosu koo may doomu taset dama gëm ne waa taset ñëpp ñoo waroon jàppale caw ndax saas la ku mel ne caw saas la doom boo xam ñëpp ko bëgg saas la ndax taset mosul am doomu nag ci ñoo ngi door am mu ne ku mel ne bu ñu ko amee ñu ñëpp dañ cee war a profité jàpp ci balaa muy jeex yàlla na yeex balaa mu jeex mais kenn xamul kañ lay jeex moom nag dañoo waroon jàppale caw ba courant mat fépp yoon yi mat fépp fu ne mat ndox mi mat fépp fépp école mat fépp ba keneen ku fi ñëwaat doo sonn mais dama ne nga am nga nga nga am sa mbër nga am ma dama ne nga am sa mango nga jiw sa mango ba mu ñor mu nga yi ab xale bu ndaw ne la daggal sa mango ma jox la mango bu ndaw bu màggee mooy gën a ñor loolu daf xam ku dox rek moo koy def <laughs> loolu moo tax nañ am fulo fayda tey Mamadou caw mii ndax Modou Thiaw moom waxuma lu ma dama ne keroog Modou Thiaw li ma def bu doy kenn ku dëkk Taïsir li ma def bu la def dara doo doy ndax Modou Thiaw daa jël lépp jox ma loolu ku dëkk Taïsir bu la doy dara doo laa doy ba pare mu def Taïsir lu kenn deful may gërëm aussi ñu ngi doon xëccool may leen wax ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk te lu ñu boolee moom foofu lu ñuy xëccoo man aussi may leen gël gërëmaat ndax lan ndax gis naa aussi yëg cër bu ñu ma jox ndax mosuma dégg nit wax ma ci ñaaw moo tax may leen wax ne foofu ci ñoom am naa ci ay papa ay am naa ci ay yaay am naa ci ay nijaay am naa ci ay mag am naa ci ay rak ki nag metti woon na mais lépp rafet may leen gërëm lépp leen aussi di leen woo ndax man de wallaay lazim tase rek moo ma ñor tase rek moo ma ñor to am nañ ko mën a liggéey taseet te keneen ku ñu topp suñu bàyyi yàgg nañ topp ay gan ndax koo topp dëkku fi dëkkam lay defar avant mi doon sa dëkk ay galongeer for ay lu nekk suñu maam fu neen lu nekk ñoom la fa seg nañ ko mais ku ñu topp bu nee la nga defar sa dëkk caw nag toppul ci kenn caw ci mag Macky Sall tractement la topp toppul ci kenn moo tax defar na dëkkam defar na dëkkam ñeneen aussi koo fal fii dëkkam lay defar avant nga defar sa dëkk comme bu ñu am nañ doom boo xam nag jàmbaar la mën liggéey suñu dëkk dañu jaw jàppale ko ñun ñëpp moo tax maa ngi woo tout le monde ñëpp ñoo leen di woo occasion la yàlla xewal nañ nañ ci profito jàppale waa te waa ji jàmbaar la te wax dëgg yàlla jàmbaar la ndax taseet taseet wax ji bëri na de mais gérer ko yombul ndax commune boo xam ne bëriwul koom-koom amul usine amul carrière amul dara nit ñi duñu fay impôt marché bi ay vingt mille ay trente mille dugal par semaine nga soxla ay millions ay mil ay milliards pour defar sa dëkk loolu yombul loolu il faut nga am ndimbalu état te yàlla may nañu ko moo nag suñu chance la dama woo ñëpp ñu ñëw jàpp ñu bokk ndey bokk bàyyi moo tax maa ngi woo tout le monde autour de l'essentiel mu ñëw jàppale Modou Thiaw man nag maa ngi jéglu tout le monde képp ku ma tooñ maa ngi lay jéglu jégal naa ñëpp di waat di dala di waat suñ suñu suñu grand yi yëpp ñoo ngi leen di woo suñu jeunesse ñoo ngi woo tout le monde asalaamaaleykum wa rahmatullah